maa ngi nuyu supporteru Diène Kairé maa ngi nuyu Boy Kairé mii papam doon fierté Médina ñëpp xam ne làmb ji nga xam ne Sénégal mooy sport favori Diène euh, Boy Kairé moo fi ëpp victoire tey bu yàlla dogalee moom mu raccroché indil ñu doom joo xam ne day def fierté Médina wu yëpp ba buy saay buy dem drapeau Médina lay yóbbaale saay bu tourné gis waa Médina si ginnaawam da koy yokk jom yokk ko fulla yokk ko fayda ba nga xam ne saay bu demee dem indil ñu ndam ñëwoon nañ fi keroog àndax monsieur le maire mu am la mu diggante ak yéen def ko ñu ñëwaat fi tey mu mottali yéeneem gi mu am si Diène Kairé waaye ñuy ñaanaat yàlla it ñëw fi euh, gannaaw waati suba ngir feete victoire bi fii àndax monsieur le maire te ñu jàpp ne Diène sas nañ la Médina nga ñu ñun ñëpp ñu ngi si ginnaaw waaye it am nañ yaakaar si am nañ confiance si yow le maire Bamba Fall am na yaakaar si yow te it boo daanee it nag ah dana la bëggal de boo daanee monsieur le maire Bamba Fall dana ñëw ànd ak say supporters ànd ak maire bi ànd ak conseil municipal bi ànd ak délégation bu rëy wane na tey Médina amati na ndam kon ñu ngi sa ginnaaw vive Diène Kairé bon courage et bonne chance. asalaamaaleykum mbooloo mi euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp vraiment di wax euh, bi. soyez soyez la la bienvenue euh, ngërëm na ñu ngi gërëm gërëm boo xam ne amul amul fu mu yem monsieur le maire Bamba Fall. lii dama ne lu teew la mais avant avant avant Diène man la daan jàppale. Mm-hmm. Bamba sama carrière amul lu ma jàppalewul mm-hmm. mun naa ko taxaw wax ko fu nekk du sax dama ne c'est un frère pour moi yàlla di def di def ba sama carrière jeex yàlla indil ñu Diène Kairé ba jéen ñëwee li mu njëkk a wax mooy kii sama doom la te effectivement doomam la parce que gis naa ne mi ngi mi ngi jëfe li wax mu naan doomam parce que mënoon na ko wax nii rek mu yem ci làmmiñam mais mu ngi ko jëfee bi jéen commencé carrière am ba léegi loxo Bamba Fall mu ngi ci te loolu mun naa ko seedal mbooloo mi bi suñu première rencontre ak moom dafa yëkkati un somme de un million teg ko suñu loxo parce que euh, làmb moo laaj préparation te combat jéen bi combat capital la pour ñun loolu doyul tey mu indiwaat teraanga ju toll ni kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan nag li mu ñaanal jéen muy ndam la yal na ko yàlla defal dimanche parce que ndamu jéen ndamu Bamba Fall la parce que euh, moom la fi yàlla teg pour le moment muy maire de la Médina te euh, bi ñu ko sollicité par sunu biais le biais de de notre président d'écurie da ko ko wax tey le soir mu recevoir ñu ne dinaa jàppale jéen ba ngeen xam ne dinaa la jàpp te yemul foofu nee na bés bu yàlla dimbalee mu daan combat bi moom moom leen dina dina dina def leneen ak moom kon yàlla na yàlla motali loolu di wax ne daal kontaan nañu di ñaanal yàlla vraiment Bamba daal yàlla na fi yàlla bàyyi ko fi yéen i mu am si Medina yàlla ko yàlla dimbali mu àggale ko waaw ñu ngi leen di gërëm nag di leen sant di gërëm vraiment délégation yëpp góor rek sama nami kii moom sama nami yàgg nañu am na ay taasa daan naa ko bëgg dugal ci làmb ji <laughs> mu ne woon non demal bàyyi ma si ginnaaw rek donc macha allah lii mooy Sénégal Sénégal jàmm rek moo ñu euh, moo war a sax parce que loolu jàmm jàmm ko gën mm-hmm. donc réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. maa ngi nuyu monsieur le maire Gora mbay Gora di fab sama nuyoo bi laa bëgg nga tegal ma ko ci conseiller bi yëpp conseil bi sagal nañ ñu parce que le maire moo ko def le maire suñu xewlee tey mënoon na yónni kenn wala mu ñëw moom kenn maire conseil bi yëpp la indi premier jour conseil bi yëpp la fi indi kenn desul. tey mu jëlaat conseil bi genn wàll bi indi leen fii les conseils municipaux man ci sama bopp en tant que conseiller vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm au nom de l'écurie bo di leen xamal ne aussi Bamba Fall teraanga ji mu fendi vraiment kontaan nañ ci lool écurie bi staff bi ñëpp a ci kontaan parce que Bamba bu ñëwee ñu sollicité ko dem wax ak moom premier jour lan la ñu wax lépp lu ngeen bëgg lu ma mën danaa ko ci def loolu kum doyul dara du la doy bi ñu ñëwee wax ko suñu besoin li ñu bëgg lépp dafa ne dinaa defar t-shirt dinaa joxe billet dinaa joxe xaalis jàppale leen ci saayir ak ci baatin vraiment man mi leen fa yóbbu j'étais très content parce que je suis maire comme lui mais en tant que maire comme lui mu sagal ma sag bu mel noonu ci biir mbooloo mi ci écrit bii xam ne dañ ko teg sama loxo mu bëgg écrit bi passé fi mu nekkoon parce que dama ne Médina la ñu bokk ñun ñëpp fii Bamba Fall moom la yàlla def muy le premier magistrat ku mu neex ku mu naqari même soo àndul ak moom yàlla loolu la def ci bunt bi la ñuy jaar man lépp lu may départ ku fi nekk ci bunt bi laay jaar su ma àndee xale yi bi ñu jaaree ci bunt bi nag yàlla def na vraiment trouvé nañ caabi bi euh, Bamba a tout fait defal nañu lépp sant nañ ko gërëm nañ ko sant conseil bi sama moroomu conseil yi fi nekk yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que taxawu ngeen ñu taxaw ngeen écrit bi taxawu ngeen ma man mi bokk ak yéen conseil bi su fekkoon ne tey dañu woote kenn ñëwul ci yéen vraiment daañ xalaat ne man mi aw ma benn njariñ mais maa ngi sant yàlla di leen gërëm jéen nag amul fu mu yem ci gërëm ci yéen jéen kayre xale bi moo ma ne ci làmmiñam papa mu ne ah mu ne ma c'est pas la première fois lu ma mas a def bàmbaa ngi ci biir lu ma mas a def bàmbaa ngi ci biir loolu nag ku mu doyul dara du la doy bàmba daal na xam ne jéen mooy doomam Medina nag moo xewle tout le conseil bi fi nekk conseil municipal yi fi nekk yëpp jéen seen doom la papa ma ngi nii dafa fab lépp teg ko ci sama loxo bi mu ko tegee sama loxo dama koy ànd bokk xale yi parce que du cër buñ la jël rek jox nga bëgg ko téye yow kenn dama ko seppa séddoo ak waa Médina yëpp ku ci mën jàpp woo naa la pour nga jàpp ci bis bi kontaan nañ trop ci ci ci li Bamba def jox nañu 200 tickets jox ñu 200 t-shirt mais ci biir 200 t-shirt 200 tickets yi dama woo jéen waxtaan ak moom ne ko jéen euh, Bamba dafa am ñu ko wër ñu baree baree baree bari joxe ne joxe ne ba sonn te bis bi bisam la yow looy dimbalee bàmba mu ne ma papa xam nga lu may def jëlal cinquante tike dagg ko ci ticket yi joxal ma waa kër Bamba jéen moo ma wax loolu jéen kayre moo wax loolu lay dégg seen bopp mu ne naa dagg cinquante ticket jox ko waa kër bàmba ñu yóbbaale ko teraanga teraanga rek ko koy faj kontaan nañ trop monsieur le maire boo demee nga ne maire fii moom Médina écurie bi moom amul dara luñ koy wax macha allah yal na ko yàlla defal lu mu bëgg ndam li ñuy wut nag yal nañ ko yàlla may. jërë ngeen soirée de fête la pour la Médina parce que suñu doom moo xewle moo ne suñu doom damay jël commencé bay commencé par papaam papaam man ñu dañoo màgganoo noo fii ci koñ bi am ku mel ni Diène Diène doon un modèle waxuma rek en tant que mais un modèle boo xam ne. dafa il est bien éduqué correct te loolu bett moo parce que encadrement am la encadrement familial am la encadrement am la dans l'écurie tey jii tout le conseil municipal de la Médina ñoo mobilisé derrière le maire pour lui apporter le soutien qu'il faut et nous souhaitons que mu kii mu am la victoire pour que demain dimanche ci guddi fii la fii la ñu dajewaat fii la ñu daje bu soobee yàlla te bu soobee yàlla xool yëpp ànd biir na actuellement ñëpp and pour jéem am ndam tey moo tax vraiment tey jii mën naa wax ne euh, am nañ yaakaar trop ci moom ah bon le euh, keroog maire ñëw na fi joxe l' équivalent de presque un million de francs mais tey jii dañuy déw indi un soutien boo xam ne c' est pour les supporters en billet en t-shirt donc le tout global c' est autour de presque trois millions te loolu c'est un devoir pour la mairie de de de soutenir des modèles pour les jeunes parce que Diène ce n'est pas seulement un champion mais pour les jeunes modèle pour les jeunes parce que c'est quelqu'un boo xam ne am na fulla ci li muy def am na fayda ci li muy def te ni ko yarul asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di remercier d'abord monsieur le maire ci acte bi mu def gis nañ ni fan yii yëpp vraiment taxawaayam à cause de suñu président monsieur Yatou ndax ñun bañ ko defee président rek la ñu waa écrit bi sas donc ñu leen di wax rek léegi jéen nekkatul jéenu waa rue 25 rue 30 ans la jéenu Gueule Tapée la jéenu faas la dana dem incha allah ba nekk jéenu Ndakaar loolu la ñuy ñaan yàlla ndax nit dana toll foo xam ni euh, ñi ko jege rek ñoo ko xam mais incha allah liñ ci mën a wax bariwul mais dinañ xam ni artisan yeeg menuisier yeeg ñëpp ngi ci ginnaaw jéen kay kon nañ ko ñaanal yàlla dimanche ci heure bii ñu taxawaat fii di ko jubilé di ci kontaan di ko saafoo di ko neexu ko ñu ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf